Serigne Touba ñu yàgg fi lool te léegi incha allah bu ñu taxaw lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba yàlla na ko liggéey ci sagoom Serigne Abbas Mbacke itam lépp lu mu bëgg a liggéeyal borom daal moo ci yàlla na ko liggéey ci sagoom eh, kon daal mbokk yi mbégte nii tey ba ñu ñëw tey ni Serigne Touba ñëw na ci dëkk bi kooku ndeysaan Serigne Bassirou Anta Niang moom borom Daaru Muxti moo egg si noonu di nuyu euh, Serigne bi lool ci leen lii day Mbàkke rëy ci waa Daaru Muxti lool rëy ci Serigne Abbas Mbàkke lool. Güzel. Bunu diyeceğim. kon fii teeloon naa doy njabootu Serigne Touba la Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xamante ni bii moo daal taxawu kilifa yi fi daan bàyyi ko moo jox ndigal Cheikh Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg lool tam àgg yàgg fi lool tam àgg yoo xamante ni ak taalibe ku fi mas a nekk Sëriñ Tuuba moo xam ña doonoon ndeysaan ndeysaan wallaay ku bàyyi daal mu ci xel sëriñ xaalis mu borom daaru muxti mooy egsi noonu daaru muxti ak njabootuk sëriñ basiiru ndeysaan dañuy cereeg sa jaxasoo ca baawoon seen mbiral jiitu ñi jiitu ñaawoon la Serigne Moussa Ka waxoon rek wallaay wallaay wallaay sang bi nee na mbégteem rëy la lool euh, Cheikh Mountakha nee nañ bu sëriñ Bassirou teewee ak sëñ Cheikh Assou Faye ak sëñ Khalid euh, mel na ni moo Muxti gépp teew nañu kon li ñuy ñaan rek mbégum sëriñ Touba moomee di sëriñ Bassirou yal na jaar ci Cheikh Mountakha ba tasaaroo tey ci dëkk bi ba bu fi jóge rek ñu xam ni mbég ñëw na tey ci dëkk bi waaye ñun tam dañuy ñaan euh, sëñ Bassirou Abdou Khoudoss nee na dafa am ku mas a ni sëñ bi ci bëkk na gi